Ah, moom dañ ko wayloo mu bañ dagg bopp waaw mais man tey man ne ma waxal waxuma waaw dagg sam bopp dellu si bi dellu si bi dellu si bi comme hmm? ban dellu Pawlish baalu baalu bi baalu baalu bi baalu àq bi fii <laughs> ah la ngay rafet barke Seydina def na yow loo xamante eh, woote pour ñu andil ko Pawlish dañ waxante dëgg léegi doo doo ma nopp tamit ah non non daa am xamante ne dañ koy waxtaanee. xam li ma la mun a wax mooy. waaw Sanex na lu rafet. <laughs> Oh. def na geste te du ñu amoon diis yu mel ni Sanex. Oh. barki Serigne Saliou Mbacké. Sénégal jub xocc. kenn du waxante lu ñaaw. dëgg la mais su ngeen wootee nag. Saliou dañoo ma bett. Uh-huh. te dafa bett waali. barki sa da ko yow wax. barki yonent bi ne ma demal nga jëli Pawlish ma tax sama oto dem jëli Pawlish. wala daa julli gee ba pare rek di naan kafe rek tourné gis Sanekh ak Pawlish <laughs> mais tamit. Euh, woote bi waaw lu rafet non non eh, non eh. Sénégal nag nañ partagé vidéo boobu si moom. Sénégal pour ñu partagé yow lu baax. waaw du yomb du yomb. mais mais nañ mu gën a def. vidéo a wër. Ah. dafa wër a wër. dafa war a wër na vidéo bi gën a law gën a dem. bilaay ndax Sanex tey li mu def rafet na waaw lu baax lu baax Pawlish da leen jàppoon ci koñ Pawlish da leen jàppoon ci koñ xoolal leen xoolal di leen pam di pam dee. Hmm. di leen def Zimo yow bee passé lan nga lu ma la tey Waly leeral na ko nee na ko hmm. Pawlish sama doom nga. bilaay kon Waly. Hmm. papaay Pawlish la mu leer. lu leer jarul wax jarul dara. mais mais mais mais est-ce que leen lii bett na leen banda bettu ma moo tax man la bettu mbay bu ma interviewé dama ne ko ñoom ñaar junne ak seemel la dara xajul seen diggante te li ma waxoon ba yàlla suturaal ma lool laa gis tey ba yàlla may ma seen ndam bilaay dama la ko si ma ne la wéy am na ndam mais daa mel ne daa mel ne Wally dafa dégg sa wax ji na nga communiqué bërki déemu ne la ñoom ñaar junne ak seemel la seemel la kenn xajul seen diggante mais ñu si doon man mu nekk nii délégué laa bëgg a woo. non wuy ma baal tudd turu jàmbur yi ñooy tudd fii. Ah, dama dégg <laughs> ñoom ñëpp ah, ñoom ñëpp cofeel moo leen dar rek. Oh, dañoo xër si waale rek mais xoolal ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñuy reeree. Omaro dañu woon su ko jàmbee ñu ko dóor mi bëgg a dee. Pawlish <laughs> ak délégué Amar ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñuy toog di reer ak président. <laughs> mais mais Pawlish est-ce que gënul jege tamit ndax ñu gis tey lii xam ne Pawlish ku yàgg ak waale la ak jubóo bi nu mu amee nii aussi. waaw loolu ku ne xam na ko waaw loolu ku ne xam na ko. moom waale ñoo yàgg du tey ñoom ñaar yàgg na. Pawlish a Wally dafa yàgg. ku si wax na si wax lu rafet. bilaay en tout cas daal média yii bu mu la bu ñu la ko dékk. si waaw ba ngay wax loo xam ne da ngay saaraame. après xam nga looy mujjee rus. kese mais est ce que xam nga tey dina fi toj. kan la Pawlish. tey un million la yor si posam. incha mais du ne mais te dafay damaa naroon tëdd. yàlla na ñëw mais Pawlish daf maa ma demal xaar ma bokk. parce que maa ngi ñëw. mais c' est normal loolu c' est normal c' est normal. waaw Pawlish nii la. nii la mhm. nee na nag wax ju ma wax ne ko yàgg naa xañ ay net di la jox. ndeysaan wax jooju dafa ma tuuse. billaay dama xam ne dëgg la lu wér la. billaay barki Seexul Xadiim béykat bi nañ ko ñaanal jàmm si kenn. nga ni ko. gaa yi xaj si moom mais moom xajul si kenn. xajul si kenn nañ ko bàyyi ngir yàlla moo dàq way si àdduna. barki seexul daa gént Pawlish gis Pawlish. waaw nga war a xam du nitul neen. ba pare nag yow nag ne leen. Eh, ñëwoon na fi de. waaw jaay daan waaye kii yow lu muy wax nii. Mhm. dafa toog rek gis ko day nit. ñu neen de macha allah. rêve lu ma lay digal mooy nga ñëw langaamu balaa muy xat. mooy man langaamu man langaamu si kenn. ñëwal nga langaam. da ngaa daw. ñëwaat. waaw am na léegi ndax ku gis Pawlish xam ne yàkkamti woon waay ndax gis nañ ko muy man nit day juum nit matul. man mun naa juum. tay ah. wax loo xam ne lu rëy la. kon dal na yow mën nañ nit day juum nit mun na wax mun na wax ba pare te du seetlu li muy wax Pawlish ku ko ku fekk mu toog fëgg ko ne ko waali nga bëgg war a bëggoo ko mu mu mu jël goon tiire la yow yow mi ko wax ndax bëgg ko mu bëgg waali Pawlish ak waali du tey ñoom ñaar dañoo bëggante ah, lan leen bàyyi non euh, maanaam xam nga seytaane dafa garaaw seytaane dafa garaaw barki Seydina Muhammad buy ñëw buy ñëw yow xoolal doo sax comprendre barki Seexul Xadim mhm. tey man ba ma gisee man vidéo laaj ko dama ko kott na ko o oh, yàlla suturaal nañu barki Serigne parce que dafa ñaaw quoi parce que ñun bëgguñu lii waaw xamuñu kër gu nekk di génn fii di wax waale kër gu nekk di génn fii di wax naan bëgguñu loolu ñun lépp naay suul ñun xoolal ñun lépp nañ tolloo mais doon dévoilé de mu doon dévoilé ay secret de nee na bâtiment bi tamit moom moo ko moo doon ko tabax de non ah, ah wax dëgg yàlla moom loolu moom du ci sori parce yooyu noonu yëpp yaa ngi see bëgg a bokk. non comprendre nga. loolu la ma yooyu noonu yëpp ah moom tamit moom lu mu wax ne ay lii ak laa moom la concerné. mais ñun. jàmm nañ bëgg jàmm nañu ñaan ah. neuf moto yi. yan neuf moto. bilaay yëguñu ko fekke yëguñu ko fekke wuñ ko gars bu lañ. boobu sax ñëwagu ñun deux mille vingt et un nañ si waale. <laughs> yàgguñu fi yàgguñu fi. 2021 la maîtriser woykat bi. 2021 lañ ko maîtriser. billaay 2021. mais mais léegi kenn mujjee ñëw. ci le 12 ba laa ñëw. ci le 12 ba. non mais tey laa ñëw. ma leer ñun comprendre yàlla moo ñu defal nii ñu mel. fu ñu dem ñoo fay gën a fees. waaw comprendre nga yàlla la ko du ñun. barki Seydina Mohamed ci le 12 ba ñun nañ ñëw. te lañu ñu soxna woo daal ñu taxal badge jaay loo ñu billet. te le douze ba yàgguñu fi kon na yow duñ toogee fi yow di nettali li ak laa kon ñun dañu woon naa fekk parce que ñun suuf ay Baay Faal lañ gëmuñu kenn ku dul Maam Seera Faal barke Seexul Xaddim te muy dëkk voilà mais gis nañ ci Soxna Aïdara ci vidéo yi donte dégguñ mu wax mais toog gis nañ mu toog mel ni ku mm. yedd mu mel ni moom aussi tamit day def liggéey bu am solo ci biir kooku lu baax la xam ci àdduna kooku day nit barke Serigne Saliou Waly jooyul mama jaaga ndax jëmm jooju voilà kooku lu baax la xam. très lu baax la la lañ koy yare moom day xool jumeau ñaari jumeau yee ngi dóorante mu fexe ba woo benn jumeau bi fexe ba ah. ñu ànd. Ah, da nga see bëgg a da nga kon kooku kon kooku amuñu fayam. dañ koy ñaanal yàlla na koy yàlla may jàmm ak gudd fan a wér. te ñu bàyyi wax jeeg ñaaw affaire yi ñaaw yu ñuy def. voilà na rafet quoi. dëgg la showbiz na affaire yi rafet. mais fii léppay jeex. waaw. loolu mais mais léegi si léegi jàmm am na. Euh, mën nañu alhamdulilah. mais lépp mu ngi doxal ci jàmm. tamit gars yi di bu ñu génn di wax parce que bëri na sax maa ren yenn saa yi wax après di ko regretté. xam nga tey benn bopp dama dégg waadu bu ñu di way ne ngir yàlla kenn ku jóge fa la ñëw téye leen comme naa euh, kon kooku mu ngi ñuy wax quoi euh, euh, si biir wax fu ñu na ñëpp ñu nekk benn parce que géej la kenn ku nekk da nga ñëw jël sa wërsëg dem barki Seydina Mouhamed géej la. géej la de ku ne xam na te moom soxorul. te ñoom ñoo ngi jël seen wërsëg. xala soxorul. kenn ku nekk yow. billaay wallaay taala li nga fa war a jël par force da nga fa jël mu neex mu naqari nañu bàyyi yàqante bi nañ bàyyi li wag laa dafa amul sens parce que lii day jeex soo bis la day jeex nan jox nan jox waale cër xam ne kilifa la yàlla moo ko def kilifa xam nga tey wax na ko si biir i wax si moo hmm. nee na ñi muy àndal yàlla xam na ni moom magu leen mais dañoo jël cër bi delloo ko ko nañ gën a yokk cër bi. cër bi quoi ndax est tubaab bu liggéey ordinateur ci bopp bi la ko liggéeyee. mais est tamit moo tax euh, police di jàppee ne moom ak Wally la woon 2009 ba 2024. moo tax mu mu mu may wax foofu nag foofu nag gis nga foofu ku koy xool da ngay juum. voilà tey man am na mbàkke mbàkke yu ma foowandoo man ak ñoom. depuis temps xale tey man ñemewu ma leen wax yenn wax yi. Mhm. ndax xam naa ne tey màgg nañ te am na fu ñu toll am na fu ñu toog. fa yàllaaw sañu ma ñëw ne leen lii ak laa yaa ngi may dégg. kon tey nit da ngay nangu cër bi loolu kese la man foofu laay waxee. Mhm. waaw nit cër bu ko yàlla may da nga koy nangul. c'est ça mi ngi noonu. Mhm. loolu kese la mais yéen a ngi waajal ah waa incha allah dinañ dem. non non na nee na si di bi lay ñëw si kii lay ñëw si xaw ma si lan